Thank jigéenam woote loo lambe tubar fakalla macha allah day indi ay morsom takk te ci weeru koor te takku jàkk lañ def Baye Modou nee cinquante mille ci faatu Baye Modou nee masa tag ma sayar ndaak suñu góor ki ñu dooleel ki ñu bëgg ki ñu fonk lu ñu xeele mu taxaw ba mu jeex takk cent ci Baye Modou kan tubar fakalla macha allah miwlu miwlu bi borom sowrum bu ci Masalikul Jinaan borom sawrum bi ci Cambérène 2 teel a xëy guddee wàcc chéri mam jaara baye Alioune Prince 150.000 la lal fan ndàkke dafa tombé koor de ñu dara takku jàkka tubaar fakal la masàllaa nee na na sëy bi seddu guyi te dik la nee nga sax ci dak yalla defal la ci njaboot gu barkeel tubaar fakal la masàllaa dama bëgg nak yeen internet bi ngeen xam fa ndag li mu rek baye Modou Kara ko ñëw tubaar fakal la masàllaa euro ménage ak heure bu jot nga dégg euro ménage madame Mbaye tubaar fakal la masàllaa nga yeggale sa ko la la jeeg bi loo wax nga ni damaa kontaan ndax lii tubaar fakal la macha allah dina doon ci ñu bari surprise ndax dañ ne woon du fi am ñii ne du ko def ñii ne mënu ko yaayi Miss Monde tubaar fakal la macha allah mu rëkk di demee ngorom personnalité di demee jomam di demee teel a xëy wacc wàcc tubar fa kàlla macha allah mu dégg tay madam mbay réew mi dinañ jom mu dégg tay madam mbay réew mi dinañ jaxlé mu dégg tay madam mbay ñi ñi ñi tok du wér joy tay dina bari yaay Miss mondu xamal ngeen bëss bi dang koy am mbaaye tubar fa kàlla macha allah ñu yeggalé suñu sago rek la la ku la xam-xam laak Fan baké xam laak bay Modou kan mm. tay néna la borom xolu jama bi mo xewlé mm. ki nga xamantani kuy kuy kuy loolu rek sagaraw nga ca tubar fa kàlla macha allah la li du chance mérite la mm tubaar la fan mbàkke nit ku bax la nit ko xamantene ne ku tok di wax ci mom suba ba da nga na man la gëna bëgg tay boñ doon wax yeen ñaar seen digënté lan lay doon faatu mu nekk nit ku bax nekk nitu valeur nga wax légui bàyyi modou kan mu yàgg ak ñun nak té musul dem benn yoon bàyyi ñu bàyyi modou kan heure bu metté mi ngi taxaw yi taw mi ngi taxaw bu naajee mi ngi taxaw té bu ma ko waxee àdduna duñ la déré ndax fan ndakke xamna ni ne wax dëgg la tubaar fakala macha allah mu defati nim naan def rek té tay bàyyi modou dafa am ndam dal day ciblé tey bu nekkul woon weeru koor nga dégg daal fii ci sa kër baay maanee nga nee toog musoo daw bàyyi musoo daw say rakk musoo daw bàyyi say àndandoo mu baax mu gëm mu riis yoo xamante ne da ngay dégg heure ménage ak ki nga bëgg yoo xamante ne da ngay dégg heure ménage ak ki nga loob yoo da ngay dégg heure ménage ak ki nga yëg di ko sentir normalement réew mi dafa fi dara faat nga am jom miin ak yooyu yaayu arab mu baax mi tubaar fa kàlla macha allah mbokk ndeyum gay mu yàgg lool tubaari kàlla lii tey jomb la lu mën a nekk la tubaar fa kàlla macha bëgg arab teg ci wetam arab yaay morom la ko def confident la ko def tubar fakal la macha allah tey Fatou Mbaye dañoo am ndam tey tey tey jii dañuy zibilé.